salaamaaleykum mbokk internetu Warkha TV tey seen émission conseil santé tamarin la leen indil ñu gën ko xam ci turu olof ci turu daqaar daqaar nag mi ngi jógee ci garab googu ñuy woowee la tamarinier moom nag boo xoolee benn kok moo ko couvrir te boo ubbee ci biir mi ngi am benn lu guus lu maron te ci biir am na ay doom yoo xamante ne dañoo noir ba paree di biree moom nag dañ koy bayee fii ci Afrique mais daanaka léegi ci monde bi ñëpp a koy bay bay boo xoolee dafa am ay ferñeent ak ay vitamines yu nekk ci biir am na fer am na fibre am na cuivre am na magnésium am na lu ñuy wax phosphore moom nag dafa am particularité particularité mooy feebar boobu ñuy wax engine moom da koy faj boo ko jëlee nga def ko jus di ko naan te ci tamit lépp luy metti li nekk sa biir gémmin da koy faj moom antioxydant la dafay ruyal graisse gi nekk sa yaram yow mi am yaram bari graisse day koy faral di utiliser antiviral la dafay rey ay virus anti infectieux la sa yaram buy tàng wala sa yaram buy metti de ko utiliser maanaam day ko utiliser parce que mën na saafara sa jàngoro di leen jox dig daja beneen yoon fii ci Warkha TV ak beneen